Euh, bisimilahi rahmaani rahim soxna Fatou ñu ngi dégg lool ci àndaat ak yéen émission bi defe naa defoon nañu ko nag daaw ak yéen. Mhm. Euh, di ko def ci suñu rajo Rewmi euh, rajo boo xam ne mbok taalibe bi ba dañ koy déglu waxtaan bi ñu defee émission bi ñu bëri woon nañ ma. Mhm. di di di rafetlu waxtaan wi. macha allah kon ñu ngi sant yàlla mi ñu may ñu fekk ko daaw fekk waat ko ren. Mhm. Euh, di ñaan yàlla euh, magasin jub yàlla may ñuy dugg si bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin mhm, amin eh, jërëjëf jeg ñu itam mbégte la ñuy am saa su ne di waxtaan ak euh, yow ndax macha allah xam-xam bi rafetlu nañu ko alors ni ma ko waxee nag ci annonce bi dañuy daal di waxtaanee loo xam ni ci fàttaliku ni gi ni démb la amoon di juróomi fan weeru septembre muy lu amoon kon juróomi fan weeru septembre atum 1895 bi nga xamee ni tubaab bi daal dinay jël nag décision wu yóbbu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi nga xam ne moom la ñuy waajal santale borom bi ci màggal gi euh, ñu dëgmal euh, ca Gabon euh, ñu bëgg a waxtaanee boobulee xew-xew na sëñ bi dundee itam nekkam Gabon jaaree ci wax ci yeneen i mbir yi nga xam ne yëpp maam borom Tuubaa dund na ko ba tax tey yàlla fayee ko teraanga gi mu ko fayee waaye ñu door ci li nga xam ne moo lay taayal waxtaan wi muy demub Gabon wam juróomi fan weeru septembre atum quatre-vingt-quinze bi ko tubaab bi euh, jëlee euh, dogal euh, kon nga dikkaat ak ñun ci boobule xew-xew Cheikh Ahmed Saloum Dieng. waaw jërëjëf soxna Fatou maa ngi leen di nuyu di la gërëm di la xew-xew boobu comme ni nga ko bu historique la ndax le cinq septembre quinze ci tubaab bi woolu woon mag bi woolu gi mooy bu sëriñ ñëwoon wax li tubaab yi bëgg duñ ko yóbbu. Hmm. parce que bi mu nee li yàlla bëgg la wax. nan la tubaab yi euh, bëggoon. waaw tubaab yi moom li ñu bëggoon mooy xoqatal ko <laughs> tiital ko euh, xamal ko ni euh, yëg nañ yaa ngi woote guerre sainte yëg nañ yaa ngi woote mbooloo moo xam ne dafay dal suñu kaw yëg nañ yëg nii comme ni ko toujours autorité yi rek <laughs> waaye moom bi ñëwee li mu leen xamal mooy doo buur yàlla mooy buur moom moom dara yàlla moom moom dara. Hmm. man it euh, jihaad bi ngeen wax ne dama koy def dama koy def waaye nag inni ujaahidu bil ulumi wa tuqaa euh, sama jihaad nag jihaad la boo xam ne dafa dafa tënku ci ragal yàlla ak xam-xam euh, donc moom tuuma yi ñu ko tuumaloon yëpp weddu ci benn waaye benn bu ne da ko delloo suñu bi subhaanahu wa mhm. mu mel ni loolu moo waral dem gim dem te xam ngeen ni wax na ci biir baytam yi tedd yi di wax ni suba ba xeebati xam naa ci lu jëm ma ko caaram ndax bi maanaam euh, raison bi ma tax yàlla exilé ma yàlla boole yàlla yàlla xoqatal tubaab bi wala yàlla xiir tubaab bi ci ñu exilé ma mooy boobu yàlla daa bëggoon ma dem jëli ndam li hmm. waaw yàlla dafa bëggoon ma dem jëli ndam li nekk koo xam ne ëllëg maay ramm sama askan ramm sama xeet ramm borom pas-pas yu sell yi hmm. nee na loolu moo waral loolu te nee na loolu nag bu dem gi amul woon du am moo tax bu ngeen seetloo sax màggal tubaab bi euh, sëñ bi feetewul du feeteelu joxewul ndigal ñu feetee bis bu mu génne àdduna mhm. joxewul ndigal aussi ñu feetee bis bu mu dellu see ci réewam mhm. mais dafa ne ni nañu ko santale yàlla nañ ko santale yàlla ci bis bi nga xam ne mhm. ci la ko tubaab yi doon génnee di ko yóbbu ci réewu Gabon euh, na ndax xam nga Sénégal réew yi ko wër bëri na euh, yóbbuwuñu ko ci benn réew yóbbuwuñu ko Gambie yóbbu ñu ko Mali yóbbu ñu ko Guinée. Mhm. mais boobu saa xool foo xam ne bu ko fa yóbboo. Mhm. du fa gis sax kuy wax wax euh, kalaama bi muy wax. Mhm. ba ci des ci réewu Gabon ba fi may wax ak yéen xam ne ne sax amoon na jullit jamono yooyu. donc ñoom ñoom li ñu jubloon mooy sànq ko rek mooy sànn ci benn société boo xam ni euh, doo gis koo waxal doo gis koo déggoo doo gis koo xam ne sax yéen a bokk li ngeen gëm muy pas euh, loolu yëpp li ci waa bi jublu mooy mooy mooy mooy mooy naax saayal sëñ bi maanaam mooy sëñ bi ndax foofa am fa ndimbal du yomba am fa ndimbal du yomba parce que mënut a communiquer mënoo moom fexe mhm. mu njëkk bi moo doon sànku rek euh, ko fa yóbbu aussi condition yi yi métti métti la mhm. ba ci dëkk su fa demoon fekk fa sax une minorité musulmane ci jamono yooyu donte euh, ñaar fukki julli wala fanweeri julli ñooñu dañ ko di di di ko di di ko jàppale mhm. mais boobu li ñu jubloon ma dugal ko ci milieu boo xam ne du fa gis kuy nuru ab jullit waaw ah, du fa gis ku ko dimbali du fa gis ku taxaw du fa gis ab sénégalais ndax fa booba dem nga moo yombul mhm. ah, boobu jàpp naa ab sénégalais amu fa ko fa tubaab bi yóbbul doo fa dem donc loolu yëpp doon ay pexe yoo a a nag wax ni euh, dem ko soo tubaab assur man abraari xëy na assur wa zanna ay daa nii hunaaka assur mm-hmm. ñoom di bi may ànd ak ñoom di dox ñu ngi defee ñu ngi may yóbbu waaye boobu man xam naa ni yàlla mi may gunge yonent ba may gunge saxaaba yi may gunge kon daal euh, en résumé euh, tubaab bi dañu fee nekkoon di noot fu ñu mag ñi mm-hmm. euh, di xoqatal nit ñi xam ni lislaam parce que tubaab ñoom ñëpp ngi gëstu. Mm-hmm. xam nañ lislaam aussi heure bu amee doole seen i pexe dina néew. lislaam heure bu amee doole liñ bëgg suñu réew yi duñ ko am. Mhm. lislaam heure bu amee doole liñ bëgg a doxal suñu réew yi duñ ko moo doxal loolu nag moo taxoon ñu ne kon nañ kar mbir mi. mais mhm. nag xam nga suñu borom subhaanahu wa taala dafa wax ci alxuraan ne yuriduuna an yutfi'u nuurallaahi bi afwaahihim wallaahu mhm. su nekk ba ba tey saa su ne ñu ngi taxaw ngir fay leeru leeru leeru suñu borom bi. waaye yàlla ne nag man maay mottali leer gi ni ma ko bëggee te kenn mënu koo fay kon nag loolu eh, mbirum si bu mag bi mhm. ak mbirum yeneen kilifa diine yi bëri bëri ci àdduna dafa dugg foofu rek mooy minu mission suñu borom la ñëw di ko doxal mhm. ndax yàlla aussi moo wax ni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafisuun mhm. ñun ñoo wàcc alquran te ñoo koy sàmm te sàmm gi koy sàmm it mooy dina wut ay jaamu yàlla yoo xam ni ñoo koy sàmm ne loola ci ndigalam ak ci fas ak ci ak ci bëgg-bëggam ak ci ni mu xalaatee mm-hmm. yàlla nag moom moom moo ne ci biir alxuraan waxaat ci ataxaroon ni léeg-léeg ngeen bëgg dara fekk gënul ci yéen mm-hmm. léeg-léeg ngeen a dara fekk loolaa gën ci yéen sëñ bi nag foofu la tolluwaayam tolloon mm-hmm. moo tax mu ne woon lii dafa niru lu metti waaye mission la boo xam ni xam na am nañu xóor xóor xóor xóor nekk sax mën nañ ko dund ndax fekk na yonent bi sallallahu feeñu ko xamal ko ni am na mission bu lay waaj a si boo boo ci jàllee ba jóge ci maanaam kenn dootu la féete kaw ci kaw suuf hmm. loolu yëpp donc euh, sëñ bi ñu ne ko ci ay bind hmm. donc loolu moo taxoon moo taxoon mu xaw mu am assurance ci li muy def hmm. parce que fekkoon na mu am kashfu lu ñu wax kashfu mooy fekkoon na suñu borom feeñu ko jaare ko ci yéen bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ni lii ab mission la mission bu méttee métti la mission bu diis a la waaye boo ci jaaree ba génn ci da nga yàlla maanaam yàpp nañu ko waajal nañu ko waaw ah, kay noonu la noonu la alors ñu des ba tey ci bés bi ko tubaab bi wooloo muy alxamis juróomi fan weeru septembre atum 1895 ndax ba mu taxawee eh, ca bureau ba ca ndar foofa la defee ñaari rakka yi nga xam ne it ba léegi ñu ngi koy màggal waaw loolu c'est important ñaari rakka yooyu xam nga c'est parce que loolu yëpp tamit daf ci magnifique ak njàmbaar mhm. xam nga woo ba ba yaakaar naa ba fi ba jamono yi ñu nekk sax. Mhm. maanaam am police wala wala gendarmerie nga taxaw seen kër bu julli. <laughs> loolooy ah, wane ne li ngeen may wax ànduma ci ak benn yoon <laughs> ndax lam ne woon la dëggal macha allah. waaw waaw parce que de courage la ak de défi ak signe euh, de de de mhm. Mhm. parce que loolu yëpp dafay wane ni euh, da leen wan ni euh, yéen da a maa woo ngir ma ni na nga oyofal sa diine. wala sama soxna sa diine ragal. moom mu ne bala maa wax ak yéen. damay nuyu suñu borom subhanahu wa taala xam nga nit ku diine mhm. euh, bërëb bu dem rek euh, ci sunna mhm. euh, dañu jul ñaar rakk nuyu bërëb ba mhm. bopp ne bi mu duggee foofu rek dafa jàpp ne suuf suuf suñu borom la subhaanahu wa taala so mhm. Mawlaana Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké daan waxee rek mhm. euh, bu ngeen mosaan ànd bu ma yàlla man yàlla defaloon na ma taw may ànd moo ci biti réew mhm. waaye boo yéemu ci ci ci ni ko tubaab yi di wormaale ak ni koy bàyyee xel ak euh, euh, foule bi koy topp ak moom rassemblement bi ni muy xub mi te te kenn ci mën dara li mu wax mooy waaw suuf yëpp yàllaa ko moom te boo ragalee yàlla ragal <laughs> li mu gisee mooy dugg nañ ko ci bërëb boo xam ne tumuranke na fa kon mhm. na nuyu suñu borom bi subhaanahu wa taala nuyu bërëb bi euh, delloo delloo léppam yàlla mhm. yàlla moo ne wa man tawakkal ala llaahi fa huwa hasbuh euh, képp koo xam ne da ngaa jox sa lépp yàlla fi mu dëgg si yow yàlla moo lay taxawu moo lay sàmm moo lay gunge mhm. Mm. leer na sëriñ Touba loolu la doxee léegi nekkam Gabon boo nu ci mënee ñëwal selon li nga xam ne nettali nañ ko ci ndax ñu ngi ko yóbbu woon ca forêt équatoriale maanaam yóbbuñ ko sax ci biir nit ñi daanaka ca àll lañ ko yóbbu teg ko fa mm. mu def fa juróom-ñaari at euh, mm. yoo xam ni teg na juróom-ñeenti weer alors euh, maam Borom Touba naka la dundee boobu boobule exil ca Gabon waaw dund gu métti la woon historien man du ma historien. waaw <laughs> mais selon li nu ci wax rek ak. moom ñàkkul lu mu ci nettali ci ay mbindam aussi. dañ yóbbu benn bërëb boo xam ne bërëb bu kanisa li ñuy wax kanisa kanisa mooy bërëb boo xam ne genre église nga xam ne ay ay prêtre dafa nekk ak ñu ne ci yeneen diine xam nga milieu bu ñu yóbbu boo xam ne ña nga nekkal bokku leen diine. te yaa ngi leen di gis suba bu ñu xëyee ñuy jaamu yàlla ci seen façon. Mhm. xam nga boo fi ndax maam jàmm ndax maam jàpp <laughs> ndax euh, comme euh, ñooñu ña nga fa di julli seen julli di def seen koros. Mhm. Euh, di sol seen tenue di àndandoo di di tudd yàlla ci seen façon. Mhm. donte dina yëpp yàlla ko moom. mais loolu pour nit ku faible la wala nit ku am complexe. wala nit ku mhm. xam ne par exemple mënoo mënoo mënoo dékku souffrance. ak a doomu aadama la ndax doomu aadama bakkan bi da koo jege. doomu aadama lu. nanguwul tumuranke moo dul jàmbaar doomu aadama aussi lu metti de nangu ko si côté lu yàgg waaw ñu bëri sax nee nañ daana woo ba ngoon mu jël xobi garab yi di ko dogoo waaw ñu bëri daana nee nañ bu daan taw day neexal ay ay presque xasida yi mu bind nii nee nañu bu daan taw sax day neexal euh, ñu ne ci église bi noonu kenn ci ñoom jox ko xaalis parce que xam nga tubaab bi aussi seetaane lañ buñ la buñ dencee aussi ci bërëb wala ñuy exilé am na lu ñu lu ñu fay pour weer pour ñu ngi respecté ay droits hmm. moom na loolu ñu ko daan jox lépp li mu ko daan defee mooy heure bu amee lu mu soxla hmm. neexal ci xeetu euh, yëfar yooyu mu nekk loon hmm. ngir di ko doxal soxlaam bokk na ci su mu sànni taw wala mu ragal téere yu tooy wala nangam da leen di neexal ñoo ñu dem dencal ko ba taw ba jeex ñu delloo si ko donc xaalis boobu ne ñëpp nee nañ siñ bi daaw ko laal daaw ko jege da ko daan ci teg rek ko defee su gisee aajo xam ne eh, mën na ko mën na ko sauvegardeel ay ay ay ay ay bien hmm. ay bien bu ko defee mu mu mu jaaree foofu def ko noonu. Hmm. alors Gabon googu itam wax nañu ne lu bari ci ay euh, euh, mbind def na ko fa delloowee ko njukkal borom bi maanaam exploité na positivement buñ ko mënee waxee noonu eh, exil bi nga xam ne tubaab yi def nañ ko ko. waa xam nga sëñ mag moom kéemaan na mi ngi eh, li benn na sa borom xam-xam murtañee bi nag mm. ci Ahmad Ba mu karaaman min karaamatillah maanaam sëñ Tuubaa moom day karaama ci karaama suñu borom bi subhaanahu wa taala waaw mm. ah, xam nga suñu borom moom saa su day wane boppam mm-hmm. xam ba fi may wax ak yow nii rek nit jàng na ba am licence am nit jàng na ba am maîtrise am nit jàng na ba ba xam lu bëri mm. nit aussi am na espace bu bu baax pour mën a wéet bind mais bind suñu Tuubaa bind moo lay wane karaama min karaamatillah subhaanahu wa taala mm-hmm. ndax boo xoolee par waxuma la sax par waxuma fa doon nekk ak condition yu métti yam nekk woon ak fa mu nekkoon ak euh, maanaam euh, milieu bi mu nekkoon nga xam ne du milieu bu nit mën a mën a fexe bay bay xalaat ndax coono yam nekk mhm. ci ay taatu garab di di di fanaan ci mhm. nga mën a am euh, xalaatu di bind te li mu bind nii ba fi may waxee yow nii benn nit ku ñu ko bind toll noonu ci ay téere amul mhm. waaw même borom xam-xam yi nag université yi ngay gis nii tey jii ak borom xam-xam bi ak chercheurs yi ko ci dañ a bind na juróomi téere wala juróom benn téere mais koo xam ne bind des des de livres yii ci tagg yonent bi sallallahu ci xam ne fiq ak sunna yi ci bàkk saabay so ñi yii aussi nga jël ci ay ayat ak quran boo xam ne aaya bu da nga jël aaya bi bopp aaya bu ne nga jël ko def ci xasida hmm. yii nga jël njabar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taalif ci ñoom yooyu maanaam inspiration boobu ak engagement boobu mm-hmm. ak vision da xam ne lii eh, may may suñu borom bi subhanahu wa taala mm-hmm. ak wane ko suñu borom doon bëgg a wane boppam ci jaare ko Cheikh Maulana Cheikh Bamba Khadimu Rasul mm-hmm. alors ginnaaw euh, weneen réew woo xam ne itam bu xaw a sori Sénégal muy Côte d'Ivoire euh, Cheikh Ahmadou Bamba jaar na fa euh, muy lu ñuy màggal ba tey di xew-xew bay am ca Grand Bassam yéen ñëpp ngeen wéy itam di topp ci tànk yooyu nga xam ne mooy alimenté. Mm-hmm. Euh, parce dañ daan indi kii dund pour tubaab bi. Mm-hmm. bu ñu demee dañuy jaar ci réew yooyu pour pour xool besoin yi nga xam ne ñoo fa nekk. Mm-hmm. ndax bateau yoo xam ne day day taxaw na Conakry taxaw na Benin taxaw na euh, Grand Massam. xëy na bu Grand Massam bi rek la la mbokk taalibe bi mu di dañoo dañoo Côte d'Ivoire. moo tax ñu koy ah, célébrer ñu koy célébrer. même bu moo moo moo ci moo ci wane ci façon am. wa taala ci wane boppam ci façon mais benn bu ci nekk état la boo xam ne fenn fu ci nekk bu fa sëñ ba jaaree sax moom fi moom bind na xéwal yi ko fa yàlla woon muy Guinée Conakry muy la ñu wax tey benee mhm. nekk bu fa sëñ mag bi ak àggee ci état bo rek wane na fa euh, wane na fa euh, lu mu fa yëg ak la ko fa sëñ suñ borom wan mhm. ak la ko fa suñ borom defal di sant yàlla subhaanahu wa mhm. wane ni fenn fu ci nekk rek moom jaar ga mu fa jaar xamu seen nag xamu seen réew waaye gis na fa loo xam ne eh, suñu borom wan na ko ne yaa ngi dem ci mission te mission bi ndam rek nga ci jëlee incha allahu taala. alors lan moo waral ñu jëlee ko ca Gabon gañ ko yóbbu woon eh, delloosi ko ci Ndakaaru la te ñu ko yóbbuwaat Mauritanie. waaw xam nga dañoo jàpp ko yóbboo foofu. Mm. Eh, àggoon nañ sa ay rumeur njabootam. waaw bu ñu leen bu ñu laajee tubaab ñu ne ko xamatuñ ci moom dara pour wane ne génn na àdduna. Mm. dañoo jàppoon ne bu ñu wanee ne sëñ bi ki ngeen gëm na te xamatuñ ci moom dara disparaître na léegi ñu nekkoon fii dañuy perdre dañuy perdre seen foi. ci moom ak seen engagement ndax li ñuy gis rek mooy ki doon woote fii rek dem yóbbu nañ ko sànq nañ ko. léegi ñu seen ko na nekk ci la ne woon. ndax ñi ay càkk lañu woon ñii dañuy dañuy yàlla ñii dañuy daal di daal xërëm. ñenn ay jullit bi def loolu nag moom la tubaab yi bëggoon mooy mooy mooy. découragé leen daal. maanaam xalakul bala bala wa sakk maanaam def ak duute duuteloo nit ñi ragal loo jërë leen et puis wane ne ku def lim def ñu def ñu ku def lu mel ni lim def ñu def ñu def la duñ ko def. <laughs> waaw mais nag saa su nekk soo gisee ñu dem ba ci biir ñu indiwaat ko dañoo gis ni njaboot gi ñu ngi nosu bi muy demit jël jàmbaar ju mel ni maam Cheikh Ibrahima Faty Mbacké bi maam Thierno dénk ko njaboot gi ni ko nañ jàng alxuraan nañu yaru yar leen ci sunna yar leen ci nangam wax ko ni mu ko bëggee lépp. Mm-hmm. te tubaab bi ñu ngi observé lépp ñu ngi observé di xam ni euh, la mu bëggoon lépp mi ngi continuer mbooloo maa ngi continuer di am ñu ngi nosu ñu ngi jàppalante ñu ngi dimbalante te dara wàññikuwul. Mm, kon moom ni ko yàlla waajalee moom itam noonu la waajalee ñu mu fi bàyyi woon defar ginnaawam. bien sûr <laughs> uh-huh. d' accord alors euh, ba mu jógee Gabon euh, taxul tubaab yi bàyyi ndax yóbbu nañ ko Mauritanie diggante 1903 ba 1907 euh, juróomi at yoo xam ne itam génnewaat nañu ko réew mi nekkam ca Mauritanie lan la ci wax moom sëñ bi ak xëy na li nga ci jot am ci nettali. waaw Mauritanie comme ni nga ko xamee réew la moo xam dafa bëri ay borom xam-xam yow xam nga même réewu naar yi nga gis ni sax réewu golfe beeg réewu arab yëpp mm. dañoo naw Mauritanie ci wàllu xam-xam naw Mauritanie ci wàllu nitu yàlla yi fa bëri mm-hmm. naw Mauritanie ci wàllu ndax Mauritanie moo réew la mu yéeme parce que même mbokk arab yi li wax mooy Mauritanie ah, balad million saayar arab yi sax li mooy Mauritanie minorité lañu boo xam bëriwuñu ci ci réew waaye lu mu gàtt-gàtt am na un million de points mm. <laughs> ñoo daa bëri xam-xam noonu bëree xam-xam aussi noonu na bëri ay nitu yàlla ndax naari ko naa ñu mën a jaamu yàlla ñu mhm. ndax nitu yàlla yu bëree bëri feeñ nañ seen biir ndax dañoo ñoom leen yàlla bind mooy ay nitu sa ay nitu saaraatiñ mhm. euh, li leen gënal mooy fu ne ba léegi ni boo dee mute mhm. euh, ni borom même ministre boo gis le député boo gis wala directeur société boo gis chaque village ñoom ay nit ñu ñu jeex ci Sofianke lañ loolu nag moo tax ñu jàpp ni comme yóbbu nañ ko fële ci yéefal pour ñu jeexital ci moom mënuñ ci woon dara dañ ko yóbbu ci biir naar yi bu bu demee dana am complexe naar yi. Mm-hmm. <laughs> Mm-hmm. d'accord suufeel ko daal moo leen ko taxoon euh, a. maanaam bu demee tey jii mën a am ko yónnee ko loo xam ne bokk te engagement bi mu jëloon mooy engagement suufi mm-hmm. taxawal loo xam ne dana dana adat mooy tarixa muride tey waaye moo tax ni ñu ko yóbboon fa la ko yonent bi sallallahu alayhi feeñoo ci <laughs> sasaara jox ko lu ñuy tuddee albidul alxadul maxuus mooy guddi bi nga xam ni ci la murid di tënku yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko feeñu te Sëriñ Tuubaa ko bind wane ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom feeñu yax sa tan ma koy gis mu jox ma wérdi wi ni ma wérdi wi nan ko jox saw ñooñ euh, waaye euh, te te te ñu ko ñu saxoo ko mhm. donc tarixal murid yi mën nañ ni te mu gën la juddoo mhm. ndax bi yàlla woon boo xam dafa woon ku liggéey mhm. la am wérdu boo la moo tax moom sax ci biir bindam <coughs> daana wax ne gabon mooy ardul kufaar wal fajara hmm. gabon ba mooy suufu yéefar yi ak hmm. saay saay si hmm. waaye mu tey mooy ardu saalihiin ardu ardu saalihiin mooy réewu nit ñu baax ñi ndax jaxasoo naag ñoom ñoom testé nañ ko ci façon bu ne euh, jéem nañ ko ci façon bu ne xool nañ ko ci façon bu ne ci wàllu xam-xam ci wàllu sufiyanke ci wàllu ragal yàlla ci wàllu jekku tasawuf mais fu ñu ko ci natt rek dañuy dem ba xam ne kii yàlla la yàlla kese na ko yàlla ko sax ak yonent bi loolu moo tax moom boo xoolee tey ji bëri na tey ji boo demee Mauritanie mhm. da nga fa gis ay centaine de centaine waaw yu ñu tuddee Ahmadou Bamba mhm. te xamuñu xamuñu Touba duñuy murit mosu ñëw Touba mhm. mais seq na seen Touba doon seqal seen i maam seen i seen seen i sëriñ ñooñu ay doom boo demee am na ministre yoo xam ne Bamba lañ tudd am na directeur société tudd Bamba parce que ñun chaque année dañuy dem Mauritanie def fa ay semaine culturelle yoo xam ne dañ koy def ànd ànd ceeg waa Mauritanie mhm. ak ñi nga xam ne dañ daan seqal sëñ bi ak yiw mhm. waaye ñoom ñëpp kenn ku ci ne bu taxawee di wax sëñ bi day mel ni yow tey tey tey ngay soog a xam sëñ Tuubaa mhm. waaw <laughs> am na naa boo xam ne waaw <laughs> kon kon demuk Mauritanie gi yokkute la jur ci yoonu murit ak li euh, sëñ Tuubaa doon woote bu ma la déggee boo ko mën nañu déclenchement la sax fa la déclenché woo Mauritanie gi mas ne fa la yoonu murit déclenché ndax comme fa la wétu bi jógee dëkk bu ñu wax Sarsaara maanaam oto oto oto bu ndaw mënu faa dem. Hmm. ba fii may wax ak ah waaw ba fii may wax waaw kon nag imagine <laughs> ndax yoon yaa jagadi wala. maanaam euh, yoonu suuf yu méttee méttee méttee maanaam hmm. ba fi bu ko vérifier parce que journaliste la. Hmm. ba fi nga euh, xam ne bu ma dem ku bu ndaw du àgg mais yenn quartier yi sax mënu ah. ne ba fi may waxee nii du dëkk boo xam ne mën na ko dëkkee. maanaam ab ab ab ab ndànd foofu dong la bu dee taalibe murid sax depuis dix ans ci ñoo fa commencé initier benn forage ak benn juma ak di fa waajal benn kër goo xam ne nañ fa mën a daje di fa def hmm. mais maanaam fu euh, situation yu bu yéemale Sarsara mais nag loolu yëpp day wane ni fu ñu ko mos nekk rek. ñu hmm. ko fa doon yóbbu pour pour mu tuuranke. Hmm. te du si yàlla koy defal ndam. te foofa dund na fa juróomi at léegi euh, tubaab yi bi ñu demee ba atum 1910 ñu xam ne euh, Serigne Touba mi xëy na fitna taxu ko jóg euh, te itam li mu ngoy daanaka mënuñoo fexe ba mu bàyyi ko ñu daal di nag teggi seen loxo ci moom est-ce que itam mën nga ñu dikkal ci épisode boobu. non xam nga tegguñu seen loxo ci moom moom bàyyi nañ ko mu nañ ko ci réew mi bi ñu demee mooy li ma la waxoon. Mhm. bi ñu ko yóbboo Gabon pour mu am. mu tumuraanke ci jaaxle jéem a wu ci milieu euh, christianisme bi mu fekkoon. Mhm. bi mu yóbboo Mauritanie pour mu am faiblesse devant les soufis mauritaniens. ñi mhm. nga xam ne ay borom ay xaadiriya ñoo fa ëppoon. Mhm. ak tijaaniya topp ca. bi te loolu yëpp tey yu baax la mais ñoom loolu mu doon auditeurs yi mooy bu ñu ko fa euh, mu am mu am mu mu mu mu mu jébul ci ñoom la diggantal. topp seen ginnaaw mais bi ñu ba xam ni. ma nga foofa mais teewul waxuma nekk gi mu nekk mu demee dafa nekk mu tëdd pare seex su mag si di jógee Sénégal di ko fa fekk <laughs> waaw di ko yóbbul ay xéewal ñi di ko yóbbul siyaare ñi di ko ñi dafa dem spécial ba fekk ko fa jébbalu ci moom ba bi dem ba xam ne kii moom mi ngi fi mais ay mbiram a nga yokk ñu ne ko nañu ko yóbbu Sénégal Sénégal aussi état bi bëri na état bi maanaam bi bi état bi bëri ceyee na nga fi jeewu la jeewu la nga fi mm-hmm. euh, ba mais bi mu rombee état bi yooyu yëpp nag parce que lu gudd gudd la mm-hmm. dañ ko indi ci résidence surveillée ci Diourbel xam nga fa la nekk ba nu muy faatoo. waaw mhm. ah, nekkul Touba <laughs> ba ni mu wujjee boromam. Mhm. donc euh, nekk gi mu nekkoon Diourbel sax mën nañu prison la. Mhm. waaw parce que euh, foofu bërëb la boo xam tubaab bi ñoo ko yilifoon dañu ko fii mën nga fee dëkk. waaw te bés bu nekk nangam yi nga mën a gis. du nekk foofu nekk mel ne ku nekk. bu waaw ci ci tey bu doon maanaam résidence surveillée daal xam nga ko moom. ñëpp xam nañ ko waaw waa kuñ tëj la. Mhm. maanaam bu kaso booy nekk ay ay prisonniers. mais kaso boo xam yaa fay nekk. Mhm. ñu lay surveiller di surveiller say entrée ak say sorties ak say déplacement ak say audience ak say même say say lépp mhm. euh, ngi ci biir waaye ngi ci seen engagement. ak seen motivation ak seen yëngatu ak seen bëgg ci moom. ak seen gëm ci moom. alors ah, non aussi fexe ba mujj nag ñu ñu ñu ñu koy <laughs> moom communiquer ak moom. communiquer boobu ak moom moo laaj ko lu mu bëgg mu ne bëgg na Touba ñu may ko. Hmm. mu faa tabax jumaa. d'accord loolu moo loolu moo indi tey jii eh, jumaa Touba jooju mën am. Hmm. lañ ko doon jumaa Njaaréem aussi wax ne du. Hmm. naa fexe wax joo xam ni day mel nii day mel naa day mel naa lañ ko daan jox mooy wecc di ma loolu ñooy sànq. ña ko doon jox ca Gabon dafa jox ci Mauritanie. te mosu ko nangoo laal wecc boobu ci la ci la jox ay ingénieur tubaab. ñu taamu jumaa Njaaréem ba ni mu àggee. jumaa Touba moom dafa joxe woon ndigal li waaye njabootu boppam gi ñoo ko àggale bu gis nga ni ma tey mhm. mu ñaari symbole yoo xam ne boo ko xoolee rek day doon fierté politique mhm. ndax tey ji bëri na jumaa jooy gis ci Afrique mhm. bu ñu nee état tabaxu ko dañ na réewu arab sàngam bu ko tabax mais ñaari jumaa yi tool ni bu bu njaareem nga xam at bu ñu ko tabaxee ak bu Tuubaa gee nga xam ne condition yi ñu ko tabaxee ak booba euh, matériel bi nga war a tabax sax bu yóbbu ko Tuubaa jafe na waaye faal yi gas <laughs> a di yóbbu di yóbbu di yóbbu di yóbbu bagage yi. donc loolu yëpp ay day day wane su ku liggéey yàlla yàlla fay la. waaw su borom subhaanahu wa taala moo ne. inna allaha la yudii'u ajra ajral muhsinin inna allaha la yudii'u ajra man ahsana amala. Mm-hmm. suñu borom subhaanahu wa taala du naax saayal jëfu bu sellal sa jëf. Mm-hmm. yooyu nag ay leçon la yoo xam ne suñu koy wane. Mm-hmm. loolu moo waral la ci kaw la moo waral la ca Tiwaawan mhm. moo waral la ca Njaasaan ndax ñooñu ay mag lañ ñoo xam ne ñu joxoon si tudd yàlla mhm. am na ñeneen ñu fi nekkoon jamono yooyu daan tuddoo suñu borom mhm. mais du woon dëgg ci ñoom mais amuñu ah, xam ni eh, la nga nekkoon dëgg la ci yow muy pas-pas bu wóor ci yow même même boo dëgg ci tarixa sax la nga nekk bu dee dëgg ci yow ah. dana feeñ ci yow feeñ sa njaboot feeñ ci sa askan sa sa sa sa ginnaaw dëgg la yàlla moom subhaanahu wa moo ne lépp lu baax lu nekk dama koy récompenser. Mhm. te su ko récompenser da koy fuul. Mhm. kon daal moom moom moom ñaamatun awlaaha allah subhaanahu wa taala lil muminin wal muslimin. Mhm. am na benn waykatu Mauritanie bu ne Cheikh Ahmadou Bamba ñaamatun an amahu allahu ala al umma. Sëñ Tuubaa xéewal la goo xam ne yàlla subhaanahu wa taala moo ko xéewale askan wi xéewale ko julli bi xéewale ko umma bi. donc ñun africain wala ñun sénégalais ñoo am faiblesse. parce que tey jii Karl soo ko tuddee. bu nit nekk ci àddina bi da koy xam. boo tuddee euh, Roger euh, Garaudi boo tuddee naa diw ñëpp koy xam ci àdduna boo xamante ne day mel ni amoo doom dëkk biir. dëgg la bopp yi suñu mm-hmm. góor yàlla bopp yi suñu jàmbaari bopp yi daanaka dañuy nekk suñ bi te di di leen di leen mm-hmm. soofantal ak di di euh, am na ci yoo xam ne boo xam ñu ne man xaw ma affaire murid wala xaw ma affaire tijaan wala xaw ma affaire nangam. Mm-hmm. loolu yëpp affaire complexe la. lii def dafa suñu borom bi subhaana wa taala la. lii exemple bu yàlla di wane ku jëf ma fay la. lii exemple exemple boo ne ni diine islam ku ci jëf yàlla sant la gërëm la sa a ak sa ginnaaw. Mhm. donc ñun dañoo war a tiitaroo Sëñ Tuubaa dañoo war a tiitaroo Xaaji Maalik Si dañoo war a tiitaroo Mawlaana Cheikh a Niass. Mhm. xam nga bu ngeen ma toogee Cheikh Ibrahima Niass al-Kawlaxi ku ku ku jur ku ko jur doo mhm. ndaw. <laughs> alors mais ah. Serigne Touba malgré loolu yëpp tubaab yi def ko bi première guerre mondiale jotee nasaraan si soxla lool ay euh, nit ñu ko jàppale euh, jël na ci ay taalibeem yóot leen loola waral sax ñu bëggoon ko décorer Légion d'honneur française euh, ngir jàppale googu mu leen jàppale. waaye loola loolu mudaaraat mhm. loolu la ñu tuddee mudaaraat mudaaraat mooy mhm. pour ñu bañ a yàqal sa mission. Mhm. da ngay ñoom waaw. parce que tey jii su bañoon rek dañ naan kii rebelle la. waaw parce que euh, famille sangam joxe nañ famille sangam joxe nañ pourquoi mu bañ a joxe parce que dafa contre France su boobaa mën nañu indi sa yeneen condition xam mooy gën a métti la gën a dund. d'accord naxanteeg ñoom nag ci ci mën naa yombalal sa mission ba defal ko ni nga bëggee. Mhm. loolu wàññiwul dara. Mhm. <laughs> Mhm. loolu itam njàngat la mu ñu war a jàpp. waaw dëgg la dëgg la mu daaraat la rek. parce que euh, même ñun ñu nekk fii tey actuellement mais léeg nga bëgg a def dara ñu ne la administration la ko tere da nga koy bàyyi. waaw li nga xam ne xam nga koy bàyyi parce que mm-hmm. naan la. Mm-hmm. te fitna moom li ñu wax ne ak fitna na laa mel ne xasab. Mm-hmm. fitna boo xam fu mu yem. mën ngaa mer def la war a def wala ñoom ñu mer def li ñu war a def te ci dong ci lay mujj. dëgg la te yàlla subhaanahu wa taala moo ne ñu wala tanaaza'u fa tafshalu wa tazhaba riihukum bu leen xëccoo yéen xëccoo yi ndax bu ngeen xëccoo xëccoo bu metti da Mm. kon naxante baax na ci lu nekk. ah bien sûr bien sûr. <laughs> waaw lu tax ba ba ko tubaab yi bëggee décorer mu mu bañ. waaw xam nga moom décoration suñu borom moom moom moom la gis comme décoration. Hmm. ndax xam nga sax noonu moom bu la décorer da da da bëgg a am rek waaye da décorer la ndax lu mu bëgg bu sotti woon du la décorer. Hmm. waaw te tubaab yi loolu dañ ciy bëgg a dugg seen histoire te moom bëggul loolu tubaab yi bokk mu mu mu nekk loo xam dafa symbole ñàmbal tubaab yi. Hmm. moom moom suñu borom la gisoon ni moo ko war Euh, wax na ko ci xasida yu bëree bëree bëri mhm. euh, ni man euh, du ma jaamu tubaab du ma jege tubaab du ma soxla ma seen médaille yooyu mhm. ndax ki ma soxla médaille ma soxla léppam mooy Seydina Muhammad ak borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moo bind bind leen mhm. kon ñu war caa gis ne booy wut yàlla daal bul xool leneen wutal yàlla rek <laughs> macha allah bari nay bari nay jàngat dinañ ci dikk du ñàkk bu ñu ko waxtu wi mayee léegi nag ni euh, niñ ko waxee sànq ci ndorteel gi moom dafa gisoon xéewali kese euh, ci euh, mission wala fitna bi nga xam ne tubaab bi ñu ngi ko ko doon jéem a teg loolaa waraloon itam dem gi mu santaane ne nañu ko ci santale borom bi loolaa indi màggal gi nga xam ne ñu ngi koy waaj màggalu mm. ren gi nag di am aussi ci contexte boo xam ne du ma ne mësta am ndax xëy na am na lu bari lu ñu ëmpale ci démba waaye ci ñu fekkee gisaguñu ko muy mbas moo xam ni taxoon nañu tëj jàkk yeeg jumaa yi mbas moo xam ni tax na xew-xew yu bari yu fi jaar ñu euh, kon fomm ko ba ci julli euh, ñaari rakka yi nga xam ni euh, maam borom Touba defoon na ko ca buro ba ca Ndar ba ko gouverneur wooloo juróomi fanweeru septembre muy li nuy waxtaanee màggal gi fu ngeen ci toll ci wàccaay gi ak euh, xëy na situation bi fan la toll euh, la ca mën a jàpp. waaw màggal gi moom comme ni nga xam. Euh, day doon màggal spécial rek màggal spécial su fekkee yàlla yóbbu nañu ci ak jàmm kilifa yi ñu ngi ci waxtaan seen biir état ak xilaafa ñu ngi ci waxtaan ndax xam nga ni CDD bi def nañ ko ca Mbacké def nañ CRD bi ca Ndiarème comme ñu ko daan defee mais avec beaucoup de prudence beaucoup de respect pour les les mesures. Euh, bu dee am bu dee am it dina am ci respect mesure yëpp incha allahu taala ndax xam nga ne euh, feebar bi bi mu soog a tàmbali euh, nañ ba tëj nit ñi ci dëkk yi kenn mën nañ jóge ci dem ci dëkk demoon nañ ba tëj nit ñi ci kër yi vingt heures mu jotee ñu ñu tëj ñëpp mhm. demoon nañ aussi ba vingt trois yokk ba vingt trois heures ñu far dindi lépp donc loolu yëpp xëy na day suñu mooy infirmier bu naaj fa naaj ndax mbir bu nekk bu ñëwee day ñëw rek mel ni lu lay lu lay tiital lu lay jàngalaat àdduna Euh, dama mos a dégg Pape Malick si ndeysaan yàlla na ko suñu borom yërëm euh, bi ñu mujjee gisee nga ak bi mu noppalu matul manul su ma jumul fukki fan ci dëju yaay Mimi Touré mhm. mu ne yàlla yónneetul ay yonent mhm. wàcce ci téere donc il faut muy yónni leen luy wax ak ñun affaire mhm. bi ci la bokk c'est-à-dire boo dee boo dee nitu pas-pas xam ne communique bu yàlla rek communiqué ak jaami rek ndax xam mbir moo xam ne wax ñun dafa wàcc Sénégal wala dafa wàcc Mali wala dafa wàcc Italie mais pour wàcc àdduna bi la wàcc ndoo donc yàlla mooy communiqué ak jaami yàlla mooy tiitalaat jaam ñi pour ñu dellu ci moom donc nag euh, yàlla aussi moo bind nit jox leen xam-xam mooy mooy waa docteur mhm. ñooñu bi ñu jàngatee ba jàngat nee nañu bu ñu defee lii def lii def lii mën na ci mucc mhm. mooy la si mën taxaa waxoon ci tàmbali ba ba ba mbir mi ni soogaan nga xam ne matagul deux semaines mu yëkkati deux cent millions joxe ni maa ko dimbali état ndax xam naa ni xeex bi bii ñuy xeex dina laaj dina laaj koom mhm. waa ndax dañ entré ay nit ci hôpital dañ jox ñu lekk dañ fay médecin nañ jënd ay ay garab donc wane na la bonne voie bu pare nag waaye nag nañ ci teg nañ ci teg bàyyi xel waxi waa ko hmm. moom wax bàyyi xel waa ko moom buñ moo tax bi ñu tëjee ci kër yi tëju. moo tax bi ñu tëjee couvre-feu ñu nangoo couvre-feu bi ñu tëjee dëkk yi ñu nangoo toog. Hmm. parce que moo tax léegi bi ñu nee ñu def masque moo bu ñu bu ñu nuyoo kenn nuyoo. Hmm. donc je pense que je pense que bu ñu defee màggal bi mu ànd ak respect yooyu euh, condition yooyu. te màggal bi ci kàttan yàlla xam nga chaque année ñun chaque trois ans benn colloque international sur le tourisme ren mënoon moo ren quatrième édition bi. Mhm. mais pour respecter di xew ci àdduna bi. Mhm. moo tax ren invité wu benn nit bu jógee fenn du du Mali du Burkina du Italie du mhm. euh, teew. ci boobu chaque trois ans. mais dañ ko def euh, colloque bi dina am mais avec ñu def conférence vidéo. d'accord visioconférence. vidéo kon nga xam ne kenn ku fa nga nekk da mën a participer. pour ñu bañ a posé suñu nga xam ne date bi respecté nañ trois ans chaque trois ans day am colloque. donc la bi bi mooy euh, chaque trois ans da ngay def colloque international sur le soufisme hmm. jël benn thème central wane taxawaay xam nga léegi àdduna bi aussi hmm. ni nga xamee ñëpp tënku ñu ci benn gis-gis xam nga léegi lislaam dafa bëri ay courant yooyu ci biir hmm. euh, yëpp baax na mais ñun courant bi ñu féetewoo mooy soufisme d'accord waaw soufisme nag il faut ñuy magnifier rôle soufisme ci société yi léegi chaque année aussi ñu dañu jël benn thème central ak yeneen thème yoo xam ni euh, sous la jox ko ay nit suñ paree na déclaration générale boo xam dañuy wane lii mooy gis-gisu soufisme ci developpement hmm. lii mooy gis-gisu soufisme ci benn jullit ñi. lii mooy gis-gisu soufisme ci xidma ren loolu lañ jël xidma xidma mooy servir. Hmm. waaw servir. servir servir sa nation servir sa réew servir sa tarixa servir sa diine ren te moom lañ jël. nga xam eh, ak nan la jullit yi war a taxawee pour xeex corona bi. loolu mooy tamit hmm. donc pour ne la suñu paree nag ñun xam-xam yëpp ñu balee la ñuy bal ba pare dañ koy tënk ci benn recommandation. recommandation yi nag dañuy wax ni ñun ñëpp di lañ gisee ni moom moom xidma ma mafhumul xidma nii nii la nit war a servir réewam mhm. ni la nit war a servir tarixaam ni la nit war a servir umaam ni la nit war a servir même lislaam bi mhm. pour ñëpp di dund ci harmonie ak ci jàmm mhm. donc loolu moo tax euh, bu ñu ko defee ba nag euh, yàlla defal nañu tawfiq aussi ñetti kolo yi passé yëpp bu ñu passé euh, intervention yi fa am yëpp ak ak conférence yi def nañ ko ay ci français ci anglais ci arabe pour mën ko tasaare ci àdduna bi ndax loolu mooy des mhm. Ahmed Sall mu daf mais su fekkee Ahmed Sall waxoon nañ premier colloque ba mhm. wax ju baax loolu mën na fi def fii deux ñaari ñaari siècle wala ñetti siècle mën a jariñ ñeneen génération yi ñëw xam ne suñu mag ñi de nii lañ gisoon suuf yi ñoom aussi mën a sax ñu mën caa yokk loo xam ne mooy gën a rafet mooy gën a sell mhm. parce que ñun bu njëkk dañ daal foog ñoon bind ba nga gis ku ku am xam-xam bu jeex jóge fi ay doomam jël ko di ko barkeeloo denc ko fenn mhm. wala ku xam ku am ay téere di ko bind ci loxo noonu su paree doom ji jël ko denc ko moom di ko xam sa waaye bind lu ko nettali waaye du ko tasaare mhm. tubaab li tax ñu noon noon ñu nii euh, tënkuñu moom mel ni ñooñu moom mooy ñoom lu ñu mës a def dañ ko bind tënkuñu mhm. ñun ñu ñu judd rek di ko jàng def na loolu dëgg <laughs> donc loolu loolu te sëñ Muntaxa it gis ngeen ni garab bi mu wax la Cheikh Mouhamadou Bachir nee na na nañ ko def te te te tënku ci ni ko waa kër docteur bëggee. Hmm. waaw te ni mooy mooy fexe ba ndaje yi daan am Touba incha allah xëy na du am mooy mooy conférence yi daan am xam nga dégg nga bu màggee gëstu dañ ko dañ ko daa jël ay conférence ci biir Sëriñ Touba gi. Hmm. daan euh, euh, préparatoire di màggal avant la cérémonie. Hmm. waaw donc yooyu yëpp ren xëy na du am euh, xam naa ak guñ sax ci décision finale bi. mais liñ liñ jàpp daal mooy lépp luñ mën a def pour mën a moytu dajaloo yi dañ ko def. sensibilisation waaw sensibilisation bu ñu mën def aussi ci ci ci population yi. Mhm. pour ñu ñu wàññi tànqaloo bi ci kër yi ak ba bañ a raxasondoo ci benn bool ak euh, jël jël jël yi tasaare ko ci kër yi euh, loolu yëpp dina am daal réunion yaa ngi am te mhm. yaakaar naa incha euh, la jur incha allahu taala te te xam nga ay ay junni junni doomu aadama wala million doomu aadama fu ñu daje di ñaan yàlla fu ñu daje di ñaan yàlla bu ñu xeeb la fay fay balle mhm. bu ñu xeeb la fay balle ndax yéen sallallahu wa wax na ni mbooloom julli fu mu daje dafa tudd yàlla subhaanahu wa taala dafa mm-hmm. bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam malaaka yi wax yàlla ne ko sa sa jaam yi dañu nga daje fee di ñaan sàngam mm-hmm. yàlla ne kon naa leen saafara bëgg kon nañ jàpp ni bërëb la boo xam mën naa saafara corona bi allah mm-hmm. justement oh. foofu la ñuy jaaree ñëw ci màggal gi li mu représenté ci murit dégg nañu benn kilifa wax ne keroog dafa mel ni indépendance ci ñoom euh, màggal ban euh, euh, bon mënuma wax ne lan la représenté ci murit mais tey murit ban yëg-yëg lay am ci xew-xew bu mel ni màggal Tuuba xam nga sunu borom subhaanahu wa taala mooy moo ni la in shakartum la azidannakum mhm. bu ngeen ma santee ma dool leen te yàlla waxi yàlla moom moom moom moom joxoñ la. waaw nee na na nee na sant ma par force de bu tane bu ngeen ma santee ma dool leen. Mhm. te seen tubaab xam lu ma wax. Mhm. bis bi su ñëwee na ngeen ma ci sant la yàlla. <laughs> bis ñu ma yóbbu woon bu ñëwee. nee nee neewul na ngeen rey nag neewul na ngeen rey xar te ni sant la leen ma ci yàlla. nit ñi nag ñoo dem ba gis ni sant yàlla sax bokk na di di di di bëggal biir yi ak di bëggal xel yi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw loolu loolu wàññiwul dara ndax waa maa bi dee matara bi ka fa xadis lépp xewal suñu borom la. yàlla dafa indi xar yeeg nag yeeg bëy yeeg ginaar yi pour pour ñu sant faar ak ñu sant bëy ñu sant ñu sant. <laughs> tey daa bëgg la mu ñuy xéewalal ñu di ko wane. <laughs> waaw mm-hmm. mais moom la euh, moom objectif principal bi mooy sant yàlla. te yàlla aussi moo déggee ku ma sant mu doole la. yàlla moo ne ku sant mu doole la donc nag yaakaar nañu ne bu ñu ko santee dañu dolli chaque année muy dolli ko rek moo tax màgg gis ni muy màggee. Mhm. ci cadre mhm. Mhm. yàlla. alors ah. sëñ bi jàng ñu bàyyi la xëy na bu fekkee am na loo bëgg a jeexale jëm ci màggal gi ak itam njàngat yi nga xam ne sax xëy na képp kuy murit wala képp kuy jullit ba doomu aadama war nga ko jàngat ci jaar-jaar yi mam borom Touba ba yegg si tey ci màggal gi nga xam ne dem na ba ko fi ni nga ko waxee muy wéy di màgg at mu jot. waaw jërëjëf soxna Fatou maa ngi lay sant bu baax di ñaan yàlla yàlla ma ñu fekk waa déwén. amiin euh, di sant waa rajo réew mi. Mhm. ndax euh, liy yëg la. ndax fexe ngeen ba événement bu am rek ngeen euh, delloo si nit ñi. Mhm. indiwaat seen mémoire teg leen ci yoon wu leer wi. Mhm, te so so sori folklore. ndax xam ngeen ni lu mag lu nekk dana am lu nekk ci biir. dëgg la. waaw mais Sëñ Tuubaa moom ku ko xam téere mii. lenn lu ci bind luy luy soofanal yonent bi wala luy soofanal lislaam wala luy soofanal sariya amu ci. donc léppam yàlla la léppam yonte bi la léppam sunna la. dëgg la donc damay damay dénkaan gi. Mhm. ñu tënk ci ci ci ci mbindum sëñ bi. Mhm. ndax nit ki la mu bind moo ko ñor. dëgg wax moo ko ñor. Mhm. te mus sa wax jëm ci mpo mus sa wax jëm ci ay caaxaan. li mu wax mooy tagg yonte bi sallallahu alayhi wasallam bàkk suñu borom bi saaba yi ñaan yàlla. loolu nag moom lépp lépp dafa tuur dugal ci alxuraan ndax yàlla moo ne ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen. gën ñaan yàlla def. lay sakatum la azidannakum mooy euh, nu mu tuddee su ngeen su ngeen ma santee ma doole leen. donc hmm. murid yi dañ tënku foofa. taalibe yi tënku fa um, te te aussi nañ bàyyi euh, euh, maanaam li li ñu li ñu maanaam ay gaara wala ci diggante hmm. surtout loolu moom jamono yi xawoon naa yàq. loolu baaxul parce que li gën mooy yàlla moo ñu bind wuute nañu. Hmm. innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila li ta'aarafu. yàlla moo bind def ñu ay góor ak i jigéen ak i waaso ak i xeet mu mbóot mi mooy taaruf mooy nañu nañu nañu xamante te dimbalante parce que taaruf bu amee mooy xamante. Mhm. xamante boo xasee am dimbalante dina am. Mhm. dimbalante xasee am jërëñante mën naa am jërëñante bu amee lu ne xaj na ci biir ci wàllu xéwal. Mhm. te yàlla bindu yàlla bu ko defee mu def ñun ñëpp ay ay juif wala mu def ñun ñëpp ay jullit mu def ñun ñëpp ay ay ay ginaar wala mu def ñun ñëpp ay golo mais dafa dafa dafa bindee àddina mu ko bindee. diine yi aussi mu koy wàccee par étape wàccee yëpp ci suñu borom bi subhaanahu wa te bu ci ne dafa ñëw mottali ba ca des. bu ci nekk dafa ñëw mottali rek complément la. amul benn wuute. Euh, amul benn wuute parce que yàlla du yàlla du wàcc lu dëgg. Mhm. te lii suñu borom la jógee subhaanahu wa taala donc nañu ne dénkaane mujj bi daal mooy sant état bi ci effort yi ñu def. Mhm. ci corona bi ci biiru mu tàmbali ba tey sant kilifa diine yi nga xam ne yëkkati nañ seen kàddu def ci. sant kilifa diine ci exemple leer bi ñu ndax fu ne dafa am foo xam ne bu ñu fa àggee nañ dañuy déglu xaw is euh, euh, allo allo in ko dum laa laa dégg nga xam bu xam nu hmm. te feebar bi ñu xam dara mooy waa ko docteur te waa ko li ñu wax dañ ko war a jëfe ñun ñii ndax ñun suñu suñu ay docteur hmm. ay ay ay ay ay ay sëriñ daar lañu ki mécanicien ak journaliste la luñ ne ko ñëpp jëfee hmm. yàlla def may ñu dugg ci màggal ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilah rabbi te yàlla jeexal ko ci àdduna ndax mbir moo xam ne créé na crise ci àdduna bi nit ñi dematuñu dikkatuñu nit ñi tiit nañu nit ñaa ngay faatu euh, doy na waa daal man nu nii ni ñu war a saafantoo am na ñoo xam sax tiit nañ ba soo ne dañoo seen i jàng sax dañu leen a arrêté am ñoo xam tiit nañ ba dematuñu ci ci dëj am ñoo xam tiit nañ ba dematuñu ci seen ngeen di xaalis wala maanaam maanaam àdduna bi dafa taxaw mm-hmm. te loolu mënut a yàgg kon yàlla ko yàlla jeexal ci jàmm. amiin yàlla may ñu xew-xew yi ñu jub yëpp dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn naa loolu moo gën ci àdduna bi gën ci ñun jërëjëf waaye du la bàyyi nag te waxoo ñu tuuti ci euh, forum euh, islamique euh, pour la paix bi nga xam ne yow yaa ko jiite ana luy sa taxawaay ak ci lan ngeen di yëngu ngir ñi nga xam ne présenté nañu la noonu ñu bëgg a xam itam ci ci lan ngeen xam nga ñun ñun man maay premier initiateur suñu kuréel bi ma jiite mooy union de la jeunesse premier initiateur concours correction sur le Coran depuis euh, depuis 1993 ren na am 28 ans. Mm. ren euh, feebar bi moo tax defuñu ko mais chaque année dañu ko def ren na woon am 28 ans. forum islamique pour la paix aussi depuis 2002 la lañ ko initié suñu association boobu. Mm-hmm. Euh, li ci jublu mooy jullit di di waxtaan seen biir. forum mm. boo xam ne chaque année dañuy invité ma réew la te ñun bokk na suñu su ba dafa bokk suñu suñu objectif ak suñu vision mm-hmm. man man suñu Mourtala moo ma yar te suñu Mourtala ni ko amoon ouverture d'esprit la mm-hmm. ndax loolu moo ko may mu naan dem Amérique dem France dem Italie ba am toujours ñu fa am tey mm-hmm. mu naan toog fii doomu suñu Tuubaa laa ñu koy siyaare ay ami daayira ami taalibe mais ouverture d'esprit boobu moo ko may mu dem ba am ay journée ñu koy defal ci Amérique ci Nations Unies am ko Italie am ko France parce que bu bu mën a mën a jaxasoo ñëpp donc ñun loolu moo tax ñun ci cadre union de la jeunesse sénégalaise nga xam ne ci ndigalam lañu ko amee woon ñu ne nañu créé benn forum annuel boo xam ne dañuy mën d' association ndax Sénégal li ci association ëpp na na ay cinq cent association association jóge ci région yu région bu nekk Sénégal quatorze a mag ci réew dañuy waxtaan ci jàmm mhm. chaque année nag dañ ci wutal ay thèmes xam nga lislam jàmm la mhm. asalaamaaleykum sax jàmm la <laughs> te ci jàmm la tàmbalee ci jàmm la jeexee. sax mhm. yetuhum fiha salaam maanaam boo demee àjjana sa jàmm la jàmm la ñu nante mhm. donc euh, te te dañoo demoon ba diaboliser jullit yi def leen ay terroriste ci mhm. àdduna bi lu xew bu ñu bu ñu sànnee mbedd bomb sax ci benn café ci corom ñu ne euh, frère musulman wala nangam nangam wala courant sangam islamiste wala nangam nangam ñun nag ñu dem ma xam ne visage bu continuer dana taqal euh, derul islam ñu taxaw ñun en tant que des des des des prédicateurs wane ni l'islam nekkul fañ ko dëgtalee fii la nekk. Mhm. te xam nga soxna Fatou àdduna fi mu toll léegi mooy mhm. loo wax ci Thiès bu jàpp ne waa Thiès ngay waxal àdduna ngay waxal. ndax su su jaaree su jaaree Rewmi FM. Mhm. jaaree ta jaaree télévision sangam jaaree rajo sangam jaaree site sangam nga def ko ay nga def ko ay déclaration sànni ko ci ambassade yi wax ak àdduna ndax loolu mooy dem. donc ñoom vision engagement lañu gis mooy chaque année ñu dajale euh, cinq les cinq grands confrères du Sénégal. Mm-hmm. dajale une quarantaine de stations représentant les quatorze régions. Mm-hmm. échangé ci ay thèmes suñu paree nag ko ci benn recommandation de Thiès pour la paix. Mm-hmm. fexe ba ambassade yi nekk Sénégal yëpp am ko organisation internationale yëpp am ko presse bi am ko parce que pour àdduna xam ne waa Sénégal nii lañu gisee jàmmi am ak jàmmi àdduna bi. donc euh, xam nga euh, xam nga yaafu baaxul te tubaab bi ñun dañoo dem ba gis ni tubaab ñun ni ñu tubaab bi rawee mooy ah. ab yëngatu ak wag na seen bopp ñu gëm ñu aussi war ñoo toog rek ñun croiser le bras du bànneexu am mm-hmm. dañoo li am xam ko dañ ko war a wane àdduna xam ko mm-hmm. mm. ci loolu ngeen nekk macha allah Dieng ñu ngi lay gërëm bu baax euh, di la sant ci waxtaan wi naam xat nga ndax yéen a ngi ci wàccaayu màggal gi euh, nekk ca Touba waaye teewul itam wax dëgg yàlla may nga ñu tuuti ci sa temps waxtaan ak ñun euh, ci li ñu fi sumboon tey di ko fàttaliku muy ba maam borom Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul doon dem ca Gabon te tubaab bi woolu woon ko juróomi fan weeru septembre ñu ko doon fàttaliku kon ni ngi nii dem ba jërëjëf ñu ngi lay gërëm di la dig daje beneen yoon incha allah waxtaanee du loo xam ne itam dafay fàttali démb euh, te am solo lool ci tey salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum jërëjëf Dieng kon euh, mbokk yi li nekkoon seen émission démb tey ñu doon ci dalal Cheikh Ahmed Saloum jeng président forum islamique pour la paix euh, nekk itam vice président commission communication bu Grand bu Touba di gërëm bu baax Diawo Diallo mi newoon ci jàppandal gi Fatou cam Ngom moo newoon ci kàddu gi di daje beneen dimanche incha allah ñu waxtaanee leneen ak keneen di ñaan borom bi subhaanahu wa xéewalam ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ak suñu mag ñu baax ñëpp jërë jëf démb ak tay la woon ñu yendoo ak